di ñëw di ngeen déggaat yeneen ralliement yu ëpp doole yii yu ñëwaat ci parti bi ndax nit ñi ñoo bëggal seen bopp Ousmane Sonko loolu laa leen wax lii mën naa ne liggéeyuñ ci dara sax ñun ñun ñoo ñuy woo téléphone di ñu sonal ne ñëw leen ma jàppale Ousmane Sonko sans condition xam nga loolu lu mus am ci politique ñoo leen ma jàppale Ousmane Sonko sans condition ñoom ñi ñëpp tegaluñu benn condition xam ne ku jege woon Galawa ak Galawa ku ko xam ne lim ci alal ak kii nekkoon ci PDS ku nekk xam na Karim Wade ku nekk xam na Karim Wade la représenté opposant bi sax mën naa mu bi doole ñun nag fa bàyyi ñu ñëpp jàppale Ousmane Sonko mi nga moom sax yorul benn dërëm pour mu ñëw fi sax day cotiser mën a fay ay garñeem loolu sëñ bi ko war a seetlu yéen journaliste da war def loolu def ci jàngat